village nañ ko wax bien avant temps yi waxoon nañ dañ def benn benn dañu woo ñi nga xamante ñoo autorités yi pour ñu jàppale ñu def curage bi avant nawet bi di tey li ñu bañ nag pour mu àgg ci population bi mais actuellement soo xoolee actuellement c'est catastrophe te lii yaakaar naa premier taw rek la premier pluie la mais ci Camtour kon xam yaakaar naa kenn mënu fay jaar ndax gis nga oto actuellement ñëpp dañoo boycotté nag muñu fay jaar mais waaw au niveau de Guédiawaye surtout wax naan Nimzaat point bi nga xamante ne actuellement mooy point actuellement mooy point Sëñ Assane bi amaana beneen point boo xamante ne moo nekk ci jumaa ji amaana beneen point boo xamante ne moo nekk fi ñu wax yëngu leen eh, ñu koy wax en face jàkk bu Diaw beneen mi ngi nekk en face mairie bi quatre points yi daal nekk na point yoo xamante ne vraiment bëgg nañu ONAS ñëw taxaw jàppale ñu quoi vraiment